bisimilah dañuy sant yàlla ci biir bi di suñu ñaari waajur di ñaanal suma papa bi jiitu yàlla yërëm ko xaree ko aljana moo ñi fa fekk ñëpp comme nu ko père Bekay waxee di ñaanal aussi suñu père Balla Gaye xam ne lamb ñàkk te lamb yëpp ko bokkoon di ko ñaanal moom it fu mu jëm gënal ko fi mu jógee suñu waajur yi des yàlla may leen pour fan ci ñoom yàlla mottali ko di nuyu d'abord journaliste yi fi teew yëpp. gis nga Père wax na ko te loolu la ñëpp remarqué wax dëgg yàlla caméra yi ma fi gis yëpp rek est-ce que Moussa dugg ci plateau bi suuf macha allah leen wax namoon naa leen lool xam naa it namoon ngeen waaye yi fi jaar yu bari moo taxoon jotaay yu mel ni mënul am sant yàlla nag ba ñu dem ba affaire yi reprendre di wax nag amul naagu Covid ñëw na fi xam yàlla di ñu dimbali ak suñu médecins yu xarañ ba tey ñuy wax mu ngi waaj jeex. waaye tant que ñoo ngi dégg benn kaa bu ñu naagu dañuy jël mesure barrière toujours ñuy wax tamit dafa am lu xew encore muy mbëkk mi suñuy rakk suñuy mag jeune Sénégal bari des si ñooñu ñoo yàlla xare leen àjjanam parce que ñoom ku ci ba ngay jógee teraanga moo la jàppale say waajur tamit dafa am lu ci am parce que am na li nga xam ne bu demee bañ koy méngalee du xaru parce que ñi dem taranga moo leen tax a comme ni ma ko waxee mais li ñuy dem ba bay méngale xaru rek lu jata lu jara xolaat la metti na waaye ñu ci am responsabilité dafa bari benn yi parents am na ci responsabilité muy nañu bàyyi xam jeune chaque jour yi nga xam ne dañuy ne ci kër xam nga amoo jëriñ sa morom nii sa morom naa sa morom ne la mën na pousser ci jeunes yi ñu dugg ci li nga xam ne waruñ ci dugg que ku ne xam na ni dem ci gaal ay millions de kilomètres loolu c'est risqué yooyu waajur yi am nañ ci responsabilité dañuy wàññi émission képp kuy mag ku ne isam la tekki teral say waajur teral sa bopp moo la tax a jóg mais waajur yi nañu bàyyi xale yi ñuy wax yooyu moo leen tax dugg ci yu bare bare état bi tamit góor góorlu góor góorlu ci emploi jeunesse bi parce que jeune mooy yor réew ëllëg dañ ci war a taxaw xam nga xoolal leen ay liggéey am nañu fi yor seen liggéey amuñu sax fuñ ñu ko defee tey yu bari loolu dañ leen ñaaxaat état bi luñ doon def ñu góor góorgóorlu ci bu baax ba jeunes yi am fii liggéey puisque juddoo fii màggee fii tekkee fii am na te am na ñi xam ne ñu fii fii la ñu nekk mosuñu dem bitim réew ku dem bitim réew loo indi lu mu bari bari ñoom ñoo lay wecci i tey juddoo fii màggee fii tekkee fii am na waaye mu nekk fi yàlla dogalee sa sa sa sa sa tedd ñu bàyyi ko xam nga yenn risques yi c'est un métti na trop trop di di wax encore di wax waaye jeunesse bi encore toujours rek parce que xam nga tey ñun fii la ñu nekk yàlla dogal na isam la ñu ngi dem bitim réew tukki te pourtant tukki am na ñi nga xam ne dañuy tukki mais lu nekk métti métti lañ daj foofu du boo tukki bu rek sa dara du baax ñu jéem isam la takkaat tubay yi xam nga lu ñu yor fii lu mu ndaw ndaw gis nga ñoo ci góorgóorlu ba dajale ay millions wala ay cinq cent mille di ci passé yàlla loolu loo ci def liggéey ci mu nekk dara mu nekk dara moo tax na xamoon dañu bàyyiwaat xel gën a góorgóorlu bu baax di ñaanal encore jiitu yàlla yërëmen xale bi àjjana amoon seen waajur yi fi des yàlla taxaw leen ba bëgg-bëgg yooyu ndaw yi amoon ci defal leen yàlla wutal leen leneen waaw loolu la ñuy wax di félicité d'abord président CNG bi lu ci nekk béykat jaar na ci mais dañ koy dañ ci kiiwaat rek comme lii gëj na am dañuy profité occasion la ci ñun président CNG bu bees bi muy Bira Sène bi ko ñaanal yéen bi koy yàlla na woyof ñëpp di séntu ci moom mooy ahlu lamb yàlla na woyof toll président Alioune Sarr tamit président Alioune Sarr it xam nga énergie am coonoom lépp def na ko ci vingt six ans yu fi nekk moom it di ko ñaanal mu am leneen leneen lu mu gën per ball di ko jaale waa Guédiawaye yëpp di ko jaale ahlu lamb di ko jaale Balla Gaye di ko dërëm demoon naa ak doomu Youssou di ko jaale Sénégal yëpp waaw après ñu xaar incha allah élection yi di nuyu d' abord nga waaye Safo énergie ak suma xarit yi ma àndal ñëpp ak ñëpp ñuy seetal par rapport ak ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax.